ñu doon ubbi fii tey ci diwaanu Thiès vingtième forum islamique pour la paix muy forum boo xam ne ñu ko tàmbali woon 2003 forum boo xam ne day woote jàmm di xëta nañ ci jàmm di lëkkale kuréelu diine yi waaye di dajale baatub lislaam bi waaye di fësal taxawaayu lislaam ci jàmm àddina bi jàmm Afrique jàmmi réew mi ak jàmmi nit ñi loolu moo tax ñu daje woon fii tey euh, doon foote forum bi ñu fas yéene fee dajewaat dina gën a suba ak association islamique ñaar jàmmi àddina bi waxtaane jàmmi Sénégal waxtaane jàmm bennoom jullit ñi mbir mi nag ñu ngi ciy sant di ci beral ak cant son sa président de la république Macky Sall ndax ni ma ko waxee sànq sama discours lii dafa am ñu ñu jàppale muy kuréel bu nekkoon ci réewu Libye bi muy association mondiale de la paix islamique waaye depuis 2011 ba tey lii bi taxaw na waaye l'islam du taxaw depuis 2012 ba tey dafa ànd ak ñun di jàppale ci bis bii bi mu yëgee mbir mi. bi mu yëgee mbir mi xaarul sax ñaari fan wala ñett ca saasa lañ daal di woo ca saasa lañ daal di woo joxe ndimbalam joxe gungeem wane ak ak jàppaleem kon nag ñu ngi koy beral ni moo tax aussi ñun bis bi ñu ñoom dañ ciy def occasion pour fësal liggéeyu benn benn doomi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi woote ci jàmm ñu ngi bëgg jàmm ñu ngi xëtu nit ñi ci jàmm te ngi jàmmale ñu ngi jàmmale nit ñi. te bu leen nit ñi saaga it ñu baal leen te moom ci la bokk moo tax tey yi ñuy def ci moom lañu ko tàmbalee moom lañ njëkk a décoré ngir effort yi nga xam ne mi ngi koy def ngir jàmm décoré ci ay yeneen kilifa bokk na ci suñu jigéen soxna maam jaara Diouf jiite fondation Cheikh fi Yérim Ndoumane Seck di jàmbaar moom it nekk ci réewu kanada waaye nekk ci réew àddina bi yëpp di fi liggéey ci wàllu Nations Unies ak ci wàllu euh, euh, fisc ak yeneen ak yeneen waaye ñëw pour dund kër ñëw pour dundal l'islam bi waaye ñëw pour beneen këri diine yi moom it soxna maam Diarra Diouf di jigéen ju baax a baax a baax bokk na ci ONG ATA bi nga xam ne jàppalante ñun bokk na ci ONG Wami ñoom ñëpp ak yeneen kilifa yoo xam ni ku mel ni sëñ Abdoulaye Dia bu Sénico nga xam ne lu ñu nekk mu ne ca sëñ Bass Khadim Awa Ba ak sëñ a soxna Asukunta bu Njaasaan ñoom ñëpp tey jii rek defoon nañ leen fii ci kanam àddina ngir àddina xam seen taxawaay ci jàmmu Sénégal waaye ngir diplôme bi des ak ñoom seen seen giru dund yàlla na yéex bu ñu fi jógee sa diplôme dafay des ndax dana wane ne ñoom bi ñuy dund doon nañ dund dund na jàmm doon nañ dox ci jàmm loolu moo ñu fa dajale woon tey. thème central bi mooy taxawaayu kilifa diine yi ak kuréelu islam yi ngir saxal jàmm ci Afrique am na nag ñeenti sous-thème yoo xam ne yii day wax ci rôle bi nga xam ne mag ñu joué woon nañu ko démb ak barki démb war koo joué ëllëg ci jàmm jël nañ ci sax exemple ci Cheikh Mahi Niass bi nga xam ne barki démb Soudan depuis ay ati at ëpp ñaar fukki at mi ngi tàkk tey ji benn doomu Kaolack wax ma doomu Sénégal wax ma doomu Afrique benn doomu Kaolack jóge fii dem lijjanti loola ci turu lislaam loolu day mandagal ni nitu diine war naa am taxawaay ci àddina bi du ci réewam rek mais ci àddina bi ndax diine diine yemul Sénégal yemul Mali yemul Màkka yemul Madina yemul Touba diine lislaam diine alamiya la alamiyatu daxwa inna arsalnaaka ila kaaffatan naas danañ fi waxtaane aussi taxawaay bi nga xam ni ndaw ñi war nañ ko am ndawi jullit yi ak kilifa diine yi ak ci xeex lépp loo xam ne dafa niru ñàkk stabilité ci réew mi danañ fi waxtaane aussi euh, li xewoon démb ci kër diine yi ak li fi xew tey ak ni ñu ko mën a gungee ba mu set te sell boo ku ko bëgg a taqal ku ko bëgg a taqal xam ni warta taq warta tilim loolu daal lañ fa waxtaan euh, suba incha allah di yaan yàlla yàlla defal ñu jàmm zahiran wa baatinan